bi. salaamaaleykum yaa riis mais booy tey. Euh, te ñoo jël eau de rek am na solo <laughs> ci noonu lañ leen di nuyoo yéen ñii seetaan yéen ñi ànd ak ñun saa su nekk nag ci seen émission kan. Kébé da bañ ko mayee jabar ba léegi ñëwatul waaye man sama yoon nekku ci noonu lañ koy nuyoo sax moom moom chéri Anta di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp dafa jàpp nii te nag doom day sa kii bi kii dafa sañsee de ah ëpp na. yii. ci noonu lañ leen di nuyoo yéen ñi ànd ak ñun saa su nekk di ñu seetaan partout dans le monde nag di ñu seetaan suñu TV point com bi àddi nañ ko depuis New York toog jàkkaarloog ñun di ñu seetaan nuyu nañ waa Japon nuy nañ leen yéen ñëpp nag ñu nekk ci hôpitaux yi. Adi. Adi ba. Adi sa xarit moo dégg léegi ngay wax moom téléphone. Adi Diouf

tey di nuyu samay mbokk animateurs yi tey lay nuyu parce que nee nañ am na mu ñoo xam nga ngay def benn affaire ñu animateurs yi di lay xool xamam la loolu je crois que da lay neex. ah donc kon tey sama mbokk animateurs yëpp lay jox lay lay jokkal delloo njukkal di la ñu nuyu ku mel ni Thiama Sanjogu Saneex Cheikh Ndiaye euh, Aziz Koutia euh, tey akkan parce que ñun ñun fi woon. Ah, Père Boukhar Père Boukhar akkan ak Tan Bombe. docteur tey daal ñooñu daal laay nuyu quoi parce que ñoom ne nañ vraiment dañuy seetaan yoro yoro deux est nee na daf may seetaan. kon vraiment euh, maa ngi nuyu. Euh, ku si nekk maa ngi la ñuy nuyu ku baax a baax parce que gis naa comédiens yi li ngeen soudé quoi c'était bien yàlla na comédie jëm ci kanam musique torox ba boo xam ne at yëpp xam ne torox nañ ne musiciens yëpp ñu yalwaan comédiens yi dundul du la ñuy jox loolu laa ñaan yàlla si at mu bees mi nga xamante ni tey jii musique day comédie ci kaw sa kanam. yow musique bu dee foo jëm musique animé sa plateau de. comédie yow ba nga dalee def comédie ba léegi ñu ne la plateau comédie la am ni mosoo fee indi comédien. Ah. mosoo fee indi sax kuy lépp. léegi nag xam nga laal mooy problème bi. mooy parce que xam nga yéen man li tax waykat yi di dem ci kanam parce que waykat yi suñu leen woowul sax ñoom dañuy ñëwal seen bopp. parce dañuy forcer. forcer ñu dañuy toog. <laughs> moo tax doo leen dem waaw moo tax looloo tax yéen voilà. tojoo leen ci la ñuy àndee Alassane ak ñi seetaan nag daal dem seetaan benn clip dellu si. <laughs> kii torop. <laughs> waxal ah, ah. xam nga rek nii laa waroon def di jëw ñi ñi jox ma fii ak ah, Sénégal màbbati ma dee may jox kanamu rama ma xam ni parce que nii la def dama yàqal man lañ bëgg a dàqalu nii def xam nga man bu musique la rek damay commencé jëw te loolaay bañ. voilà tey suñu invité yi bëgg nga ñëw ci. waaw ci noonu la ñuy àndee nag suñu ay invité nee naa leen képp koo xamante ne xew mi <laughs> zéro stress am nga ci wàll dañ la ciy boole du dëgg am di mm, li ci lépp looy mën a yëngu sax dañ la ciy woo rek nga ñëw ndax nag loo mën a dolli ci askan wi ñuy seetaan rek daf ñuy neex nga daal di koy indi ci noonu la ñuy àndee Alassane sax nag dañuy dem seetaan pub waaye balaa boobu dañuy invité suñu xarit Aminata si président MPO de Wakam mhm. mu daal di ñëw fii nii moom ak euh, Kalidou président mobilisation baak propagande ba ñoom ñëpp fii nag dëkk bi li nga nekkee man lan la ñoom ñëpp ñooy ñëw fii <laughs> nañ taxaw ci plateau bi daal di waxtaan ak ñi ñuy seetaan ànd ceeg téléphone beeg ñoom nag ci 88 628 17 27 allo dañuy daal di dem seetaan pub doog a yegg si ak suñu ay gan. effectivement c'est la raison. lii lan la yow. boo jógee pour eh, liggéey boo eh. bëggee jub pour foo da nga koy def ñun noonu la ñu woon suñuy partenaire ne naa leen xew mi ci ñoom la ñuy àndal saa su nekk sëñ Bass mi nga xamante ne ci produit yu baax yi waa Pantin nga xamante ne GTS Miso ñoom saa su nekk dañuy gunge ci lii ñuy def ak buuñaa mi nga xamante ne dafa xew ci jamono nag ay ay ku ma na ma ko yónnee ci buuñaa ci noonu la ñu ànd ak suñu xarit yi nga xamante ne waa MPO na nga def sama xarit bi Amina jël Amina nag da ngaa indi sa mouvement nekk vice présidente bi mm. bu ñu bëggoon nga expliquer ñu ci lan ngeen di yëngu rek ak lan mooy MPO. waaw MPO moy mouvement pour le progrès de Wakam. Mm-hmm. ma wax ko ci olof mooy mouvement buy jëmale Wakam kanam. nga wax olof wax ko ci français. waaw ñu gis ne Wakam ndóol bi metti na fa trop te bëriwul ndimbal ñuy am ndax à chaque fois bu ñu ndimbal dañ naan banlieue ba te Wakam am na gox yoo xam ne ñoo gën a sonn sax booy xool banlieue ba. Mm-hmm. Wakam fii nii ne ci corniche. waaw ñooñ soon nañ. am na ñu fa ndóol. Ah. li am banlieue ba am na fa. ñun ñu xool loolu. ne pourquoi pas suñuy jeunes yi nga xam ne ñu ngi fi non diplômé. mënuñu am liggéey bu baax sukkandiku sukkandiku wuñ ci dara. ñu ne nañ leen ubbil école boo xam ne dañ leen di former. ah da di ubbi benn école. waaw pour di former école de formation. ci lan lañ leen di former. en couture en couture en restauration. Mhm. en coiffure en sécurité. Ah. parce que dañ gis ne nit ki xëy na ay ndimbal daana am des fois. mais dañ lay dañ lay may benn somme bu subaa duñ la mën a mayaat te yaakaar naa loolu da ngay gën a sonal borom ñu ne ñun ki ñuy dimbali ñun dañ lay jàngal jox la diplôme ëllëg si biir fépp foo mën a dem di nga mën a amal sa bopp te doo yaakaar ci kenn. te boo jàng si doo fay. non non doo fay mouvement bi il suffit nga jënd benn carte membre à cent francs mouvement bi mooy complété beneen 500 francs bi nga nekk membre école bi tijji. ñu former la gratuitement légui ñi ci bëgg bokk mu ñom ñi bëgg bokk ci jeune yi nga xamantene ñong lay sétane ñu ko mhm. wakam bëgg ci bokk tu ñi wa wakam rek ñoo ci bokk wa mouvement pour le progrès progrès de wakam lañu légui nak dama bëgg nak nga wax leen ñom jeune yi ci bëgg bokk naka lañuy def ba bokk ci mouvement bi euh koñ bu nekk amna responsable bu fa nekk amna ay carte membre so fa démé jégué ko nga adhérer ci mom à 500 francs nga am sa carte membre nga ñëw di jang ci

Kalidou na nga def maa ngi fi rek soxna nuyu ni ñuy seetaan nga daal di waxtaan ak ñoom ci mouvement asalaamaaleykum maa ngi nuyu askan bi yëpp mhm. di nuyu waa Wakaam mhm. di beral nuyu sama président Dabo voilà donc euh, maa ngi wala ma ko ni waxtaan ah. waxtaan voilà maa ngi nuyu ñëpp <laughs> euh, di kontaan trop mhm. si teewaay bi ñu teew fii ndax euh, lii si liggéey bi la bokk liggéey dafa laaj communication te li ñu def yëpp presque def nañ ko dugg nañ Wakaam si kër yi ñu war dem yëpp kër par kër amul benn salle bu ñu duggul

gisuñu ko. Mm-hmm. lu doon doon concentré ak euh, partenaire mm-hmm. projet. Mm-hmm. donc ñu dafa am lu muy ñi. Ah. c'est bon nous, ñi. ñoom ñëpp ñi ci ëpp. ñu dara ñi seen jang un ñi ñu ngi dem di def ay donc bi mu waxtaanee partenaire am mu ne dama bëgg ngeen dimbali ma mhm. ma ne dimbali sama askan ñu ne noo bëgg ñu dimbali la mhm. mu ne man li ma soxla du xaalis bu may soxla ngeen yëkkati ma jox ko dugg kër par kër mhm. mais li ma soxla mooy former leen ñoom ñëpp ku nekk am métier mooy c'est-à-dire du dem si mbër yi xam nga parce que mbër yi même mbër yi

te ñepp ubbil nañ ko buntu bi te gis nañ moom wakaam amu fa benn noonu. donc aussi te aussi euh, li muy woote ñëpp daw nañ ñëw ut ko. te incha allahu rabbi mu ngi dalal seen xel à partir de 15 bu soobee yàlla yonent bi dañu commencé liggéey bi donc lépp teew na donc dara de quoi. merci beaucoup merci beaucoup kontaan nañ bu baax di remercier bu baax président Dabo euh, nga xamante ne ah xëy na Sénégal bu ci amone yu bari yu melne mom dina dox ndax man ba dégué que que nar tudd association bi ak yépp dañu ko contane pour mën ko tek zéro stress ñi ñuy seetaan jeunes yeeg yëpp ak ñeneen ñi nga xamante mën nañ am ay partenaires melne mom war ko def sen gox mm. té mom mu ñëkke ko ci wax wakam ñu koy ci remercier bu baax di leen ci remercier bu baax yow tamit Aminata Si Kalidou kontaan nañ bu baax ci léré li ngeen ñu indil mm. ah alu dañuy daal nak gungé sama suñu suñu xarit ci ak ben clip daal dellu ci wat ci zéro stress. oh ya, wax daan animateur bi yow cameraman bi yow monteur bi yow yow di dimbali nit ñi ah ki mati da ki bukum la fam ñu wax ci yeen ñi wa ke so gisee malay digaloo muy nga bàyyi jëf ju ñaaw ci malay xelaloo wax jaagi ni sonal ma ba

maçon yi xawma lan maçon yi eh, yow da nga tabax kër eh, neendoo si naaj bi ba ba ba liggéey ba wër bi dee ba kër ga rafet nga ñëwaat fu ci fay pot ndox ñaan la est ce que liggéey kër ga way la ak kii non jeune talent yëpp moo leen dàq way. léegi Seydina sax moom dina ñëw zéro stress. dafa mën a way de. ah ah mais il sent bien oh mais bien sûr. waaw dina ko prouver su ñëwee fii ci noonu lañu nuyoo ñi ñi àndaloon ñoom Aminta si ak euh, Kalidou ak seen président Dabo président MPO. di leen mhm. nuyu bu baax waa Wakaam am euh, am di. Mm-hmm. tey lay des am damaa nam tamit nag tey balaa ñu reetaan sax nag nga lépp def ay façon non ah. kooku dafay bàyyi Moussa Diouf ñëw si kanam léegi nii Moussa Diouf ay affaire lay def moom yow sa ay affaire ngay def Moussa Diouf laa bëgg ñëw ñu def duo parce que dama la bett parce que disons tey suba ba léegi nii ay boo xoolee ay entraîné de de de de de faire de kii euh, c'est que bu ñaa démb dañ ma rof tàngaay ah. démb dañ ma woo

nga xam dañ la war a opérer amoo xaalis ñoom ñu lebal la. xam nga yow expliqué nañ la démb nga ne yow comprendre waaw léegi dañuy indiwaat madame Buña xam nga de monsieur Buña moo ñëw. waaw waaye tey madame Buña mooy ñëw. madame Buña bu ñëwee dina leer parce man damaa bëgg li ma bëgg mu leer sama noppi mooy est-ce que dinañ leble xaalis wala duñu leble xaalis. man loolu laa bëgg mu xam. yow daal xaalis bi rekk la ci intéressé. waaw allo dañuy daal di dem seetaan benn clip le temps que madame Bouña nga xamante ne daanu daanu suñu kaw. baadu madame bi ki ma gis noonu kooku kooku ki ma gis fii toog fii. Hmm. parfum bi neex na kooku bàyyi indi xaalis fii tey. madame Bouña. waaw ah. dafa nam dara. ñëw leen. sama xarit baa ngi nii nag def move bu baax madame Sarr médina ci loo nekk. yàlla na sant yàgg yow mi nga xamante ne ah, ku feebar yéen ci mën buña ku ku ku wopp tamit yéen ak hôpital yeeg yéen ñëpp daal yéen a ngi defar lu baax ci réew mi léegi nag mhm. de monsieur buña ñëw na fi gaa mhm. expliqué ñu waaye xam nga mën ak am di suñu lépp ñëwul dañoo mhm. bëgg nga gën ñu koo expliqué wax ñu lan mooy buña waaw eh, dëgg la ah, eh, tout d'abord maa ngi leen di gërëm di leen sant ci ci àndandoo bi ñu ànd ci eh, lancement produit Bougna bi yéen waa LCS et Bougna wax ngeen ko démb monsieur Bougna ñëw na fii monsieur Pam Goumba Sène mi nga xamanteni si moom manager général Bougna mhm. euh, tay madame Bougna ñëw Madina sar, di chargée de la communication et du marketing euh, Bougna nak bu ngeen ko euh, réseau de transfert d'argent la mhm. mais au-delà du réseau de transfert d'argent li ci gëna am solo moy dañuy innover mhm. ñëwuñu pour apporter la concurrence mais dañuy ñëw pour xol fi nga xamanteni ni si fale faay yi nek ñuy fa def suñu ay action bi ci moy euh li les prêts d'urgence c'est-à-dire que da ngay gis ko xamante si fièvre na euh, dem na hôpital par exemple ordonnance bu 10000 15000 euh 000, euh metti na amul sur le coup ko fayé bu ñëwee ci ñun daar dañ koy Sénégal innovation la bi innovation tay gis nañ ni au niveau des événements événements yi nga xam ne ñu ngi koy organiser fii ci Sénégal que muy làmb ji que muy euh, les événements musicaux tout ça euh, surtout làmb ji dañuy gis souvent dafay am yenn violence yi ñun ñu innover li ñu indi mooy tey promoteur de lutte boo xamante ni si mi ngi tëgg làmb au lieu muy dem ba bitim réew di fa commander ay ay ticket ay billets mën na ko commander fii ci ñun ni mu koy commander c'est simple bu ñëwee ci ñun. ñun ni ñuy def mooy c'est des tickets électroniques mhm. c'est-à-dire ku dugg ci biir stade bi dinañ am say filiation c'est-à-dire dinañ am euh, di nga joxe sa carte d'identité nationale parce que da ngay ñëw ci point de vente bu ñaa mhm. euh, nga ñëw ne damay jënd ticket boo ñëwee ne jënd da ngay jënd ticket ñun dañ lay envoyer un message message bi ñu lay envoyé ci sa téléphone mooy sa code d'entrée mhm. message boobu nag. nga xam ne yow kese yaa ko nga xam ne yow kese yaa ko am Sénégal keneen du ko am. léegi message boobu boo demee ba ci buntu stade ba pour nga dugg da koy wane ak sa pièce d'identité ñu bàyyi la nga dugg donc ça di ko que même xale bi nga xamante ni si amagul carte d'identité nationale il faut am ku ko parrainer wala ku ko marier c'est-à-dire il faut que yaayam yëg ko wala papaam wala magam mm-hmm. bu ko defee dinañ xam à peu près ñi dugg ci stade bi ñëpp ñan la. Fallait lañ jóge ak seen identification et je pense que lolo ça participe un peu à à diminuer voilà à la sécurité des uns et des autres dans la pays en même temps mhm. mais dama gis euh, les musiciens di euh, buña dañuy leble pour nga jënd kii ñoom ne nañ dafa gis koo xamante ni par exemple ñoom dañuy am problème ku leen lebal mhm. problème bu leen lebal nous ne nañ ay ordonnance parce que nous mhm. ne nañ dañoo am jàngoro les les petits artistes ne ñoom am nañ jàngoro ndax buña mun leen fayal dugg studio. Mhm. Euh, euh, ñu produire leen. Mhm. ndax loolu bokkul ci projet. bi ñu créé kenn waxu la ko. ah yi ma ko wax de. Eh, eh, dafa mel da ngeen a wan suñu blañ ci parce que loolu lépp ñu ngi ciy waxtaan. parce que ci suñuy stratégie am na un volet social quand ñu xool ñi nga xamante ni si yelloo nañ dimbal fii ci Sénégal parce que pourcentage bi ci génn lépp du dellu ci buña am na pourcentage boo xam dañ koy dindi teg ko fële muy occupé wu juste ci volet social. volet kooku social rek a tax a jóg. léegi maanaam volet bi mooy ku ñu sàcc rek nga jël bu ñu ah c'est-à-dire ñi nga xam dañu nekk dans le besoin. soxla nañu te vraiment il faut ñu jàppale leen ñooñu buñaa teg na benn politique boo xamante ni si euh, vraiment dinañ leen mën a et l'autre chose aussi mooy artistes yi nga xamni vraiment dañuy am problème pour xam en réalité seeni ticket de vente amna na luñ ci mëna xam mais amna lo xam ne da leen échapper ñun dañuy teg de sorte que. artiste bi nga xam ne moom mooy tëgg tey ak fu mu mënti tëgg xam na exactement ñaata nit ñoo jënd ay tikkeem parce que dañ koy pointé c'est sous message sous forme électronique ah, donc loolu dafay daal di leer naññ léegi madame Sarr si hmm. je comprends bien moy buña hmm. yemul rek ci dimbali ñi nek ci hôpital yi nga xam ordonnance yi nga xamantene dang koy fay ci pharmacie duñ la jox hmm. xaalis buña buña amul xaalis liquide bu joxe dañ lay jox yow ce ce sa message nga dem hôpital fay ko fa joxe ki bi message jox la garab wala pharmacie voilà voilà léegi ci bu bu kii ba tamit euh, euh, comment dire ci làmb ji ak ci musicien yi tamit c'est électronique da ngay dem jënd mais bobu yow ya joxe xaalis ñu jaay la ticket voilà ñu jaay la ticket donc paquet bi du kayit bu ñu lay jox. ay message la. bu sa téléphone réeré ci diggante bi nooy def. ah bu sa téléphone réeré ci diggante bi nga ñëw gisaat waa Buña de toute façon sa identification ma nga fa. Mm-hmm. Euh, oh, sa lépp nga fa et tout est enregistré. amaat naa beneen message bu ma jot démb. Mm-hmm. ñu ne ma. Mm-hmm. Euh, mécanicien yi. ne ma Buña comme du ñu leble xaalis. mais ñoom. des fois dañu am ay cas critiques am pièce oto boo xamante ni par exemple. ñoom. da da dañ koy bëgg jënd mais ak chauffeur taximan ñoom ko wax rek. Mm. dañ koy bëgg jënd mais xaalis bi du demee noonu. Mm. est-ce que ñoom du ñu ñëw gis buuñaa mu jënd leen pièce bi après ñu remboursé. loolu lépp buuñaa am na ci solution dañ na ñun dañ fi nekk. Euh, euh, pour la classe euh, moyenne ñi nga xamante ni si. seeni revenu bariwul. wala des revenus vraiment yu ndaw ndawan lañ la am ñoy ñu fi tax a et puis ak ñi nga xamanteni c'est vraiment bëgg nañu réaliser ay mbir mais xat-xatu jamono mm-hmm. par exemple da ngay gis ben maçon bo xamni journalier la chaque jour day dem liggéey suy wàcc day waccalé 5000 mais chaque fin du mois war na yone dëkk ba dara mm-hmm. mais 5000 yooyu bu ko téyelee bopam le lendemain day jeex. Mhm. donc kooku dañ koy dimbali ba bu indee 5000 am ne 5000 yi bëgguma ko lekk mën na ko def ci compte bu ñaam parce que am nga possibilité ubbi compte bu ñaam. waaw mooy ubbee ci 1000F rek. gis nga 1000F dong nga koy ubbee yomb ba ne su may yónnee di comme ni ñu ko mos a mooy doo fay. doo 200 fay. doo doo fay million 200 dama ne ba million boo koy jox ci compte compte. waaw 200F te 200F bi bu ñu koy retiré sax lañ koy fay. Hmm. boo koy déposé doo joxe dara. buñ koy retiré lañ koy fay kon xam nga loolu vraiment jàppale askan bi la. dëgg et puis li gën a neex ci Bougna mooy c'est une équipe de jeunes. Mm-hmm. ki ko diriger jeune la ñun ñi mu àndal on est tous des jeunes. donc amul kenn koo xamante ni sii tey dépassé nga. laaj de la jeunesse Pam Goumba Sène la tudd. mooy ki moom mooy monsieur Bougna moom démb la fi ñëw. mom mom mom affaire bi. waaw c'est-à-dire euh, mom mo am idée bi euh, ba paré am ay collaborateurs yo xamanteni si ñu ngi ko jappalé hein contane nañ bu baax man léegi mauve rek lay sol. gis nga couleur buña nga gis nga gis nga gis nga. contane nañ bu baax ci yow madame euh, madame buña nuyul ñu monsieur buña bu baax. dina ko dégg incha allah képp ku woote ci 88 628 17 27 am nga ah, ouverture compte bo xamanteni ñun ñoo la ko may wa zéro stress. ndax mhm. monsieur buña mo ñu may loolu. Mhm. dañuy suñu téléspectateur suñu wowe am nañ droit Touba may ouverture compte kontaan nañ ci bu baax ah, ci confiance bi ñu am ñëw fii nii ci LCS di ci remercier bu baax suñu suñu directeur commercial mais mais bëgg na ah, euh, xam tamit kii Rama doguma la bëgg na xam tam sen siège bi fa la euh suñu siège ñi ngi neuf euh, Mbao Villeneuve. Mbao Villeneuve waaw ville Villeneuve. man euh, ñi ngi nek au numéro 365. fii Dakar. non Dakaru Ndiaye Dakar fofu lañ nek et puis numéro téléphone bi je pense que buñu woté ci 77. 527 58 69 dinañ ko jot et buñ ko joté aussi dinañ leen orienter ci ñi ñu wara waxal directement euh, ñu yor mbirum commercial bi ak ñu yor yenen pànc yi nga xamanteni ak képp ku bëgg ubbi aussi point de vente mm-hmm. suñu commerciaux yi ñi ngi sur le terrain actuellement nii

mën a ànd ak ñun sax wax ci nag li ngeen xalaat sax allo. allo waa Rama. oui. ça va. ça va maa ngi tudd Fatou Ngom maa ngi dëkk dégguma sama xarit bi. maa ngi tudd Ndeye Fatou Ngom. Ndeye ci loo nekk. maa ngi dëkk Bambilor mais maa ngi sori zone A. ah Ndeye Fatou yow sama mbokk nga ci loo nekk. maa ngi nii ça va. alhamdulilah. xanaa di la seetaan ak di la bëggee. kontaan naa Ndeye Fatou fi la ëppee ana waa Zona. di la bu baax ci yoon Ndeye Fatou. Eh, di la seetaan di la ñaanal bi nga dund ba nekk fu sori. amin amin ndax de ak nu mënti bëgg sa réew fu nu waxee nga ne loolu yaa ngi tudd ba am doon foo toll bu la neexul loolu lépp la ci fekk. Bila aka ngeen a fier sama xarit kan? ba Andi di sama yëglu rek pour nga pour nga mën maa nuyu ndax temps bi dama bañ crédit bi jeex waa baam bi ak ñoo baax te sincère barke rasulillah rama moo iya, iya, baax iya, ndax ko ne ko baax loolu kii muy tudd di ko sagoo dootul ko tudd rasulillah ne ci sax ñun la ndey fi ñuy bayee ñaam bi yeeg <laughs> pataas yeeg gerte yeeg suuf yëpp Bambilor moo bëri mbëtt nag Bambilor a bëri mbëtt. <laughs> ana mbëtt yee yow. alhamdulilah <laughs> maa xam Bambilor waaye. ana mbëtt yee. ah Rama nag euh, Bambilor dafa bëri laajteel papa Kara demoon na Bambilor de. Bas Jaxate mi juddoo euh, Bambilor. Mm. buy dox day mel ni mbëtt. Rama mi juddoo. ay eh, eh, eh. Rama mi Rama mi nga xam ne mi juddoo Bambilor buy dox bu Rama ba mere yow booy wax ko mbëtt buy wax. allo. waa am na lii lan la nii. sañ sa <laughs> non yow taj na fi. <laughs> dama wax waay. sosay bi rafet na trop trop macha allah. monsieur Siron. ah. monsieur Siron. dégguma bu baax. que c'est sûr. am na def ko que c'est sûr. ah. <laughs> aji. ah. allo ah. sañse nga sañse nga. bilaay non non. sa sañse bi moo may daaneer. wóor na yàlla. allo. Rama wuyul. Rama. allo. allo Rama. na nga def sama xarit bi. seen sañse bi rafet na man la ah Kumba ci nekk. maa ngi nii maa ngi ah gëj naa la dégg. maa ngi nii rek ça va. seen émission bi neex na trop. merci beaucoup Kumba yaa ko moom. sañ am na moom mu ngi fii toj. am na fii toj. <laughs> tey kay sama xarit bi da koo am na sañ mënu maa am na moom am am na du taxaw. ah dem de. kenn du ko téye. ah ku ma téye xam. je suis puissant ok seen émission bi neex na trop ko ne. maa ngi leen di bàyyi ciao ciao. waaw merci beaucoup. bisu téye antique on patate. allu ci am na koo xam ne saa bu dugg si studio bi yàq déconcentré la réglé gëmal yàlla te xam ne. yaa fi may wax ak Kébé mi taxaw dama lay wax rek wuy ma. Eh, eh, mais eh, même ma benn clip sama invité bi laa bëgg ngeen teg surprise la ki may invité tey surprise la. même clip surprise mënoo koo def nax yaa koy waxal sa bopp. waaw may la ma allo. yow am na kan da nga sañ sa yow. ah. am na li nga sol dafa rabaxul. mu ne. li nga sol dafa dang. jox ma rabal li nga sol dafa dara fa si ah sama xarit bi allo Rési amna naa keur wala am ma keur gi coupé leen bok de dama koy laj sama xarit la allo allo wi Rama wa sa va na nga def yaangi ci jàmm maa ngi ci jàmm wa su nga no man ke dama la mere am di tay defar ba bax ba séré bopam nga koy wax lii ah non ma bu def plateau ak am di ah ma changer am di yow am de doom day gën a yomb de. <laughs> ah am du taw toll nii mu changement gën a yomb de. ci loo nekk. yaa ngi xat Bambilor te Sébikotane a gën Bambilor fuuf. ah yow nag sa bopp. si réew mi lañ dëkk de. kii de man la bëgg jot moo muy wax lii muy wax yëpp ak ngeen sama. ak njekki naan ñi tekk ci réew mi ñëpp fa dëkk. benn ci yow mi xam naa. waaw ok. diggante sibu xotaan njekki naan. ngeen sama kaw kër ma maxaali ah fier d'autre bool bool même clip. xamoon naa ne bool bu je suis pour doon bool bool je suis ku bool bool yee réew mi di fan ku fi nekk bool bool yee la yor immeuble yi baax yi bool bool yee ko moom fa la toj bitigi mag yi bool bool yee ko moom taxi baax yi bool bool yee ko moom mais je suis fier pour doon bool bool ah euh, mais bien sûr kilib di jànguloo Mamadou Malick nee na Serigne Babacar nee na bu ma rusoon sama bàyyi ku ma woo ci photo ma wuy la mbañ penda paati xari penda xariala ngi def cior bu guma penda malik dabax malik dañuy joy ci noppé gunu ñun waati waawan tafsir demba bu imam maamam sufiya tor mako sonna njaay ngu njaay biram xuja tap meey cendela ndeela mbir kilaan ceet ndeela waaw la waa man naa fa Gambia woo naa la ramaca ndeela mbir ki laal ceet ndeela xew ci jamono ceet ndeela mbir ki am na mi ñoo soo ma nee jëfal ma woo naa la ceet ndeela mbir Jendela mirkila no chete Jendela jendela mirkila Wow sereri nena uganga odik oh, dik takhul ne maam yaa di ñoro nu ma tay di lu ji nooy sëtu ma baat maamu ndiri bala ni maam yaay ata bala ni woowe sa yaay seexu daraame sa baay Ousmane daraame yaa nu jàppale yaay baay seexu naa mu amet yaay guru sukkay na daraame sëtu ma ba maamu ndiri ba maamur awa balla nee naa la sooma nee defal ma ji yaa booy bir kilano ceddela wallahi am ngeen luy résultat day wess waaye ñi fi jaaroon ñep taxaw fi na ha ki c'est un professionnel. deug la bam ne dar rek lulo ngi ne 1000 francs la sami sax génne na ko pour may ko séeréer yëpp contane nañ. ah, ah? tidiane yëpp contane nañ waaye yow Moussa tamit. dañu def naan ko sax Fatou Diop fu ngay yuuxu xam nga Fatou Diop da nga am ben fan bo xamanteni ni Fatou la tuddu Fatou Diop Fatou da la bëgg. moom gis naa ni mu boobu ba léegi dafay insister pour dugg si ligne bi mais boob ba léegi nii mënu ko dugg mais Fatou Diop ndànk rek dañ ko jot naa wax sa yóbbante mi ngi nii yaa ngi Fatou Diop dalaa bëgg ba nga xamante ni nee boo yuuxoo nee na lu koy daaneel mooy li nga woy coppati sàmbay naar bi ni ni air bi nga ko jëlee naanate la noo ko doon defee coppati sàmbay naar faaramisal sàmbay naar maam sàmba duwaare naar ñaare waaw lala. Eh, di nga. xam nga voilà xam nga pison ak euh, picc. Euh, ak picc bu ndaw. bi ñuy jënd Angleterre ak pomme bi terre. waaw courant sax mos ta doon sondel. teer jee leen ah, man man daal man daal émotion ma jàpp ba Moussa te Moussa man da nga di sama woykatan. Ah. waa am di. waaw cest à xam nga. man fi ma jaar ci way. waaw tabaarakallah xajul ci benn émission jaar-jaar bi rek laa wax. waaw ma leneen bi. Moussa man li ma xam si yow li ma jàngat si yow mooy Moussa Moussa Diouf amoon na ay temps yow bu may njëkk xam Moussa Diouf da nga daan awu Moustapha Mbaye. ànd naa moom mais est que jàng xaadir yi affaire yi muy jàng noonu mun nga ko tagg Rasulullaay. soxna Khadija ku njëkk a gëm ca Makka ñaareel ba mooy Ababakar Mbaye. sopp Seydina Muhammad ku bëgg bi faaru xaxaru danam tàbbal te kase ca naan ko wooteel kuy rijaal fa makka doo tooñ omar ngir meram di ka bay ma sekk caam ma ma faadal bun ma taalimal xayaar gànnaar am ngeen maami yaaram makka ku fa dem ñu soppi soppi saw tur naan la alaaji am di leen amin wala aja bis juuf wala aja rama mi wala aja margo sama siri booy wala aja aysa sama jigéen baa mooy séeri am di nee naa la tàndarma jaa gën a neex suufus mbàkka moo gën laab ci lépp luy laab yow diwul ci suuf sa naan te ndox ma def ko muy sa docteur asamina rahmaani ah. boo déggee ma ne aysa juuf mooy séeréem aysa bii sa bokk ndey ak baay comprendre moom xaayaan ku dégg séeréer ma nee naa la dik dik taxul diggan soxna Xadija ko njëkk gam ca Makka moom yot neen taar ba ca yuusufa neex baat ga ca yont yàlla daaw da nguur ak ga yow yeneen ya. ko na min bari ba ya neena rawdatun nal tahmi min Xalifa Mbay Xalifa Mbay maam Maodo nee na naalal xilaafaata xatu saafiri wi la atu ko xat jaaw xat ngummi min rahmaani wal jaaw كرم خلبكم سليما يا مغضب الخوم سهد والبيادين لتدس تكنم تكنم تكنم بنم تنيو ميمين مازا خمغا لما دا واخ ني خليفه مباي غيغا ماي نك كونتان نتي xam naa ne boo demee da nga dem mu jëlal la mesure ñawal la. xalifa mbay mi ku baax fala juddoo fala yaroo mais li ma la wax rek loolu mais li ma la wax rek xam nga résultat baa ngi parce que keroog bu ma koy wax fii. yaa ngi taxaw ah. kii yow seetaan nga émission boobu. non dañu daje ma foo Eh. <laughs> man doom ba may toj booba. kii woy na woy làmb déglu rek. <laughs> la sëriñ di bonde. waaw ah. naa ko doom man ba may bonde fa ma ah. a ko toj. waaw ah. ba laa xew. yow daal man gisuma foo toj tojoo <laughs> waa léegi déglul. léegi rama fa kii kii mooy artiste boo xamante ni xëy na mënoo ko xam. ki da lamb ja dong la. mais xolal bayna moy lamb. bàyyi na dama polyvalent la ki da na way simb. di way ay gam Moussa deug loolu deug dëgg la. ah di ànd ak Moustapha bay di way ànd gaag ma penda. aw ko xam yow da nga ma penda mo ma ndek yóbbu Suède. yow da nga ma xam. waaw ah, toñ nga Suède. kon yaangi ba may genn Suède lay dugg Suède. momi waaw mi ngi ni nii. kon toj na de ñak xam nit woru dem naa si wi dën. 19 fois. bay li nga wax non yoy sax xam nga ki ba bàyyi ko foofu muy wax mais léegi dama bëgg nga dugg si affaire ru lamb ji ndax Doudou Yakhaty ni mi yuxo nonu mo wan ko yow. Ya jaay. eh ku man samaram dan daan di gi jarna

ci mburu gi mu génn ndar fanaanoo samba yaa ñoñoon njaay Ousmane Dramé yaay meeru ñooro bu ma nekkee ci làmb ji ba nëgë ni grâce à Ousmane ma bag maamu ndëri baay sa maam samba yaa ñoñoon mi a àtte boru fay laa waaw jaboot ñu seetaan samba yaa ñoñoon njaay ku man sa moroom daa ramatulaay léegi digi jaar naa yow. man de xaw ma fan la toj sax waaye fii toj na fi. yow loo ko woon waaye fii moom toj na fi. yow loo ko woon ndax man ba fa doon yegg si léegi sama directeur bi ne ma sama xarit la. Hmm. ma ne ko bu yow sama directeur ku nekk sa xarit xanaa moom kon sama xarit la. Hmm, hmm. Ah, li ma ko waxoon yëpp tojoo fenn ak génn naa ci waa lii lan la nii ah, yow Moussa. ki muy CD bu bees bi bi mu déggoon gars yi. te di ko diggee bor la. Mm-hmm. bu baax bi. doy na waar juróomi at ñu ko liggéey CD bi ay actualité rek la. waaye li Moussa noo def ba nit ñi jotuñu ci. dafa jaayi gun ko. ah yow da nga koo indi zéro stress exclusivité. waaw bàyyi li ngay wax eh lii da nga ko yéene eh Moussa damay génn plateau bi ñibbi lii yëpp dafa ëpp ci man. CD yëpp da nga ko dupliquer yëpp. teg ca kër ga. almaami fay xam nga Sénégal lu manqué. Mm-hmm. producteur amatu fi. yow de ku dégg lu baax li nga def producteur fu mu la ci àddina sama ñu naan ko almaami fay grâce a El Hadj Samba. Magu Lamine Samba boole maag moom mu jàppale mu produit ma CD bii. Mhm. CD bi nag dafa war a génn ci kàttanu yàlla xam nga boo gisee ma téye ko ba léegi. Mhm. kii warul nelaw dafa war a xew. Mhm. kii kay dina xew na. non kii dafa war a xew ci damaa bëgg nag LCS. télé bi nga xam ne mooy caat mujjee juddu njëkk a siiw. Mhm. damaa bëgg LCS xoolal taal ko adduna ma doon artiste RTS. LCS loolu loolu loolu sotti na. wuyu ñu lay woo ba pare. ñu doog a ci ku baax allo salaamaaleykum. maaleykum salaam ça va sëñ bi. ñu ngi lay fay. ça va Moussa laa bëggoon ngay waxal kay. bu ko leb. maa ngi tudd Bijou. tur bi. Bijou nee na Rufisque la lay woowee. Bijou laa tudd. Rufisque. ana waa Tëngéej. ña nga fa ñoom. ana mama yaa ku baax. bëgg artistes yi. <laughs> da nga doon da nga bokk ci artistes yi nga xam ne dañ maa neex dañoo mën a woy. yàllaay fii la ëppee Bijou. da ngaa mën a woy. yal na la yàlla fay. dama lay déggee dama lay déggee. bilaay fii la ëppee waaye su nekk même bu ma même. pas fii sax mais man fi ma nekk sax dama lay bëggee saa su nekk. dëgg la dëgg la. li ngay koy may waa Yoff. dëgg la. xanaa koy ku dëkk Yoff mbëru Yoff yëpp. bay laay amul maas. bay laay yaay mbërum diine. xalal nga noo yoon sang feeñ na faso daane. bu tuddee yoo foog ma way bàyyi mooy maami sëriñ Mamour Thiaw maami sëriñ Mbakke mooy maami Ibou Sine Thiaw sama fan sa baa nga yoof bàyyi amul maas bàyyi maanaay mburum diine xalal nga noo sang feeñ na faso daane subhanallahi rabbisil jala alhamdulillahi sil kama ayla ilala yaa di xal xula kontaan kontaan naa Baay Laay li nga tudd Baay Laay tax ñu wax loolu ci Baay Laay ndax moo dem ba yof randal géej lain. jaram ba jàmm lay dugal ma Sénégal jaaral morom laay laay jaar France jàll États-Unis Italia saba yaa nga naane Laila, am Laila, Laila, doomi laay laay laay ne laay laay samba yaa nga naane waaw am gàllam dooméro. Thièye Mbaye la. wuyu sa auditeur kontaan naa. Mbaye laa yeneen. yàlla écrire. maa kontaan nga. kontaan naa bu baax. di ko profité di ko may waa Tëngéej yëpp ñoom Fatou Niang sama fan see nekk Rufisque ak ñoom Maysa. dama fa bëri ay ay ay fans nag tëggee. Moussa dogu ma la mayal ma ko tamit Baye Serigne Laye ak waa Kër Laye ñi ma jàkkaarloo ca rue 23 angle 2. kon géej am na ndox. jeex na waa Guy Mariama Laye. loolu géej yokkoote la géej yokkoote oh. dem na Moussa. Bijou defar na ko yëpp waaye yëpp mat na nag Bijou ku baax. waaw. Euh, Bijou ak ñeneen ñi nga xamante dañ laa bëgg ñëpp musaa di la seetaan damaa namu sax ku baax kii bu génnee nga xamante ne li ngeen diggee li nga diggee ñoom yëpp def nga ko muy kii nii ñu daal dem jënd ji ko ndax nit boo ko bëggee jàppale da ko jàppale ci li muy yëngu. bu ma koy génne sax fii laay njëkk ñëw. Mm. mooy dëgg nag. gaa yi publicité ko est ce que duñ ko jaayee fii sax nag. moo doon gën a rafet géej am ndox. waaw ñu def concert bu mag ci kuur bi. cour bi tëgg xawaare rek. fan si ñëw jënd ko télé bi ñu ko fi tàkk ñu nag télé beeg yëpp. waaw waaw loolu nga bëgg. ah am mission ak xoolal ak conquis. doomu aadama xam lu man wuyul wuyul wuyul wuyul. doomu aadama day jéem rek. wuyul yàlla yeggale. wuyul allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Moussa na nga def. sant yàlla subhaana man la Eva Thiam. Eva. <laughs> Saar Eva Thiam. Eva Thiam. Thiam ba Demba bu baax. waaw. di ko gërëm ci li mu def dafa rafet. doomu yaay mami saw borom gël tàppe. dégg lii lii neex na. yow sama xarit nga fu ma tëgg nga ñëw ànd ak say xarit ñëw di ma jàppale. mais nag temps yii gis nga Mirador ah dimanche yi maa ngi Mirador di ñëw nag. lii nag moo tax dootoo ñëw. lii nga nekk ak man nii. <laughs> Eh, yow xoolal damaa bëgg nga wàcc Moussa. Moussa mii mu nekkee ak man yëpp dama ko wax ci suuf. dama nga wàcc Moussa kii kii ñëw dimanche Mirador déggoo ma de. Moussa dootul ñëw moom li muy ñëw Mirador. dinaa ñëw kontaan naa ko Moussa koy toj. baax suñu Saalu kontaan nag yaa na yàlla def jàmm baat bi wér. amiin amiin yaa ko baal waaw kontaan nañ trop waaw di ñu ma jàppale mënul passé fu ma tëgg soirée barke Mouhamed mu buub waa gépp ñëw di ma jàppale ca mënoon naa dem feneen Eva Thiam yow ëmma mhm. lu baax Thiam Babel Demba adokaay may ma nag meew sama jigéen ñaango maam man bu ma xewlee ñooy ñaw bu may way jarul sabar jarul bongo sax maam nee naa la ki ko mën a ku koy jéem bokkut way dafa am yoon danga koy tarbi jàng ko bu la joxo rajo sax boo la neexee am di meñoo nga woy ba xol yi fees Eva Thiam bëgg naa la sa yaay jaa baax Eva doomi yayi ma mi saw kaay ma ma nag ak meew mbaa nga may ma soo ma naan sama jigéen mbaa ngoog waaye nag dimanche maa la invité Mirador na nga ñëw. billaay defalu la neex dootoo ko dolli te yow ku fi ñëw wayloo ko ko yuuxuloo ko ba bët yi jooy nga koy seetaan. waaw da koo ragal wala lan la. télé bi suñu la. waaw wax keroog ne leen. bu dee acapella nii yuuxu nii ba ba mu ne la arrêté topp ma yuuxu boobu noonu gars yi musiciens yi di def dama leen ne man loolu musaa Diouf ngi ni wax mun na ko. ñu ne ma l'ordre bu fu ñee xam. yaay ne. am di ma ne leen daf leen dànk rek. am di wax ji da nga koy ñeme nee nga yow yaa ne munu ko. waaw yaa fi wax ne man yëpp rëccu ma. ah parce dama koy seetaan rëccu ah. Ah. xam nga koy yuuxuloo. Ah. ku man damaa nekkul fii di yuuxu ñu. ah munoo yow boo dee munoo sax dafa am ñoo xam dañ lay mere. <laughs> man nañ ma mere yuuxul ñu xam. xam nga ah. yuuxu fan lay ñëwee ci way. Ah. Eh, yuuxul daal yuuxu xam nga lay ñëwee ci way. Ah. da way ba sa baat nga yuuxu mais pas ay yuuxu mel ni ku nekk ci mbedd ak ku wéri bi. <laughs> ak mbaa ku yeneen la ñun duñ la indi fii nga ñuy def ay yëf duñu daj dajee Moussa waaw. Moussa. yow Rama. waaw yuuxu boo dul arrêté. Rama ngi nii. mën nag. ramaa ngi nii yow toog jigéenu am li mi ñoom ramaa ngi nii toog di ba dara fekk la ci man duma ci fekk damaa jëm mag <laughs> non c'est application nee yuux bi des na. waaw chéri Soso. chéri moom mooy appliqué lu ne ca kër gi. Soso ci yem. <laughs> man Pape. Euh, euh, euh, Turando. c'est yuuxu. <laughs> Eh, mu ngi visité mu ngay dégg. Pape Moussa teg maa bañ yuuxuloo yow. Ah. Ah. man sama yuuxu xajul fii. yu ma yuuxoo caméra yi day wadd. mukk ci àddina kon bul yuuxu. ca gaa yi ko tee dañuy am problème. Mm. yow baal di ma filmer. Mm. sëkki sëkki néegi mbaaw. ndengeen yaa nga yoo fi giij li bu muy borom Dakaaru jëjëf Sangomar ma yaxar ak baay biram ndooy ma ñaaw ak baay biram ndooy sabu seen ak Alassane Alassane ndooy borom Air France hmm. chéri maa ko yaate yoo kon xam nga Alassane yàgg na <laughs> montre yu baax yëpp bokk heure

li jegewul ndey wali am ni mi ñoo ma way sama waajaat tele ba ca saalam am ni mi ñoo du mel ni moome ndey wali nanga sori mani sori naa ndey wali joo ey taaru mooy moom jëkkëra jëkkëra bilaay bu ëllëgee bu fa amee doomu barkeelo yow li jëp yow li jëp yow asan jëp yow li jëp ramatulaay ndey wali joom dangaan sori naa wali ma tëjëb dangaan dangaan

panteer. yàgg naa dégg lu neex de bu doon doy sax nag doy na am di. Mm-hmm. waaye nag. kii daa euh, woy de. kii dafa woyandoog benn xale. ah ñu fi jaar ñëpp ah, nag. waa léegi d'accord naa waa léegi ah. waa léegi waa léegi moom la ñu bëgg laaj. Sénégal ku fi dàq way. mais am di loolu jërul laaj. ah kan la. Sénégal. barki Seydina Mouhamed maa ci dàq way. may la xëy la ku ràcc jëmale sa kanam de nii lay def. ñoom kontaan tan sax wala boo demee ñoom Ousmane Seck ngay tàccu. <laughs> Ousmane sama boo demee maam Góor a nga naan waay yow ta ñak nga wat deggu ma dara ma bo demé mam goor mm. keba Ousmane fek ñi nga nan wooy ak ngoma jaay sama xam ne way rek lay def yaay defarat ci li nga wax li mais nak khalifa ak non xolal mm-hmm. gis nga way legi ñepp a way mm-hmm. xam nga ya ngi xew jeex na teel a tàggoo dañ ñu da nga fay invité barki demb sama doomi ndey Seydina <laughs> mënul lu rafet ci man mom mënul bu fi ñëwati ah yag di and di wayendo. dëkk bi legi ñepp a a way kenn ko way kenn am bi way moom kenn dàq ko kenn ñëpp a mën a way. di leen remercier yéen ñi àndoon ak ñun nag ci zéro stress. di remercier ñi ñu àndal muy war a remercier. waaw duñu remercier ñi taxawoon tiim ñun ñi jàkkaarloog ñun bu ñu rafetee la ñoom papa Mariem nuyu nañ leen Kébé Moustapha Son nuyu nañ leen baax. waa régie ñëpp jeex na da ngay ñëwaat. yow ku baax ki promotion maa koy def. naa ko maa la xoon tojoo toj nga. Rama. Hmm? kontaan naa ci télé bi. Hmm. ndax man yàlla xam na ni dama koy jàpp sama waa kër di ko jàpp. barke Serigne Babacar lu la wax téere la lu ma wax lu gërëm Moustapha Diouf xeppam elag moo def bàyyi li yow waaw boole maa ngi non yow da jox ensemble costume ak dal waaw mooy dëgg nak. bërki démb rek la yaayam génn àdduna ya Xadi Saar ko di mer bu baax dafaa ya ku baax yàgg def costume bi réussi sa saam jeex di gërëm Ousmane Dramé Nioro ak waa Tiwaawan ak waa Fass gi ma dëkk ñoom